mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo ngir xam ne suñ borom mooy suñ borom xam ne itam mooy borom kàttan xam ne itam mooy boromu mat ñu tàllal ko suñuy loxo ngir ñaan ko ci fan yu tedd yi ñu nekk ak weer wu tedd wee ñu génne mu ma mu dimbalinu ba li nga xam ne moo nekk ci àdduna si te jaaxal ñëpp te xam ne ni moom rek moo ci mën dara mu dimbalee nu jëlee jëlee nu ko ci àdduna si muy lii nga xam ne jaaxal na ñëpp te xam ñëpp xam nañ ne itam suñ borom rek moo ci mën dara moom mi ci mën dara nag yàlla nañu dimbalee jëlee ko fii ñi nga xam ne jot na leen a dal mu wéral leen ñoom dolagul mu musal leen ci génne ko ci àdduna sépp ndax loolu moom rek moo ci mën dara ginnaaw loolu ñuy tàllalaat suñuy loxo tam di ñaan suñu borom mi nga xam ne xam nañ mooy ki man xam nañ ne mooy ki sañ ñu di ñaan ci ban manam boobee ak sañ-sañ boobee Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Sëñ Tuuba te xam nañ ne doomu aadama yi rek ak lislaam moo ko ñor doomu aadama yi rek ak lislaam moo ko ñor te kenn ku ne am na ci firnde loole nga xam ne moo ko ñor ci doomu aadama itam bëgg ko ci ñoom ak li nga xam ne moom la yéene ci lislaam yàlla ko suñu borom jox kàttan ak wér ak ak tàll ba ni mu ko yéene mu defe ko kame njottam te ñu ànd ko moom ci daje ci suñu borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sa tool ñi ngi ñaan suñu borom mu jox la kàttan jox la wér jox la tàll dimbali la ba li nga xam ne yéen koo def ci lislaam nga defe ko ni koy sa njot te daje ci ngërëmu suñu borom te ànd ci ko ak ñi nga xam ne ñoo ngi ko ko ginnaaw loolu nag suñu waxtaanu tey ñi ngi ko jëmale ci loo xam ne dañoo tollu ci jamonoom te ñu war ko bàyyi xel ndax xam ne lislaam dafa mel ni waxtu wu ne dañuy war a dañuy yee ci ne na ngeen bàyyi xel seenu dund nañuy bàyyi xel suñu dund nag mooy ñu bàyyi xel waxtu yi nga xam ne moom dañu am ci biir dund gi waxtu wu nekk am na ci lu ci lislaam waralal lu mu waral am na loo xam ne luñ mu lu nuy bàyyiloo xel la ba waxtu wu ne lenn lu ne da ko wutal waxtu wutal ko jamono loola nag dañuy yee ci ñu war nañoo bàyyi xel jamono war nañoo bàyyi xel itam waxtu ndax xam ne moom rek ci la suñu dund aju te léegi tey kenn xamul sa waxtu nu mu toll kenn xamul itam sa say bis nu mu toll loolu suñ borom rek ko xam comme nag mu ngi ne yee ci jamono ngir ak di ñu yee ci waxtu ngir bëgg ñu bàyyi ko xel te di ko sàmm tey mu mel ni nag ñu ngi tollu ci loo xam ne bokk na ci ponki lislaam yi dañ toll ci jamonoom ndax toll nañ ci waxtu waxtu nga xam ne ci lay tàmbali muy aj aj xam nañ ne suñu waree ci kori gi lay tàmbali ba keroo ñuy tabaski ci lay jeex loola nag kon war nañu buñ ci toll ñu jëm cee fàttaliku dara ngir delloo siwaat ko ci suñu xel bokk ko nafaraat bokk ko jàngaat ngir xam itte juróoy yi nga xam ne moom la ko lislaam jox xam yitam ab tolluwaayam ci lislaam xam itam njariñ yi nga xam ne moom la àndal te di ko indiwaale doom doomu aadama yi li li ñuy war nag ne lu lis lu lislaam réyal la lool mooy bokk na ci ponk yi nga xam ne ponk yu juróom yi nga xam ne ñoo ngànk lislaam bokk na ci aj aye nag aj lim lim li mu wooteeg wuuteeg yeneen yi ci des mooy aj moom da ci man la aju te man googee nag doomu aadama ji koy def rek moo ko xam keneen mun koo kenn mun kenn mun koo àtte ci ne yow man ngaa aji demal aji ndax xamuñu la nekk ci biiram dëgg-dëgg loolu moo tax nag moom suñu lislaam suñ borom jaf ci jàpp dal goo xam ne dafa wax ne ka ban rek moo koy def te ba koy def itam benn yoon rek la koy def ci ci dundam mu doon loo xam ne kon bokk na ci ponk lislaam yi bokk na itam ci jëf yi gën a màgg ci suñ borom ca gën ca gën cee kawe loola nag li ñu ko wan mooy dafa mas a am ku ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi laaj ko ne dama bëggoon a xam jëf yi nga xam ne moom la ñu lislaam di def loo jan moo ci gën a kawe gën moo jan moo ci gën yon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni da koo tontu nag ci tontuwaay boo xam ne li ñuy tuddee usloobul hakim mooy dangay da ngay laaj nit ki waaye bi nga koy laaj ni nga ko laajee doonul ni nga ko waroon a laajee moom nag mu gàgg mu mu won la ni nga ko waroon a laajee mooy lan ndax bi mu ko laajee ne ko gën jëf jëf yi gën ci lislaam mooy jën jën jëf dane ko mooy gëm yàlla akub yonentam loola nag mooy boo nee ne kon jëf li jëf ju baax joo mën a def te gëm yàlla gëm yonent bi amu ci jëf ji kon amul solo kon li ñuy war a jiital ci ci jëf ngir mu doon loo xam ne moo ñuy dëgëral suñu jëf mooy mën a baaxal suñu jëf mooy dañuy gëm yàlla gëm yonent bi keneen jeneen jëf joo di def lu mu baax baax te àndut gëm yàlla gën àndut gëm gëm gëm yonent bi doonut loo xam ne li ñuy jëf ju ñuy wax ne ma des na koo nangu ci lislaam ndax lii bopp bu lislaam yow nanguwoo ko loolu nag bi mu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ko loolu nekk kon li gëm li nga xam ne moom la ñu war a gën a mooy gëm yàlla ak yonentam soo gën a gëm ci jëf yi nga xam ne moom la ñuy jëfloo mu mu ne ko kon bu loolu jàllee bu gëm yàlla ak gëm yonent bi jàllee ban mooy ci toppaat mu ne ko nga na lislaam joojee nga xam ne moom moo nga xam ne gëm nga ko te woon ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo la koy jàngal nga doon loo xam ne da lay jaral dara na la jaral sa at sa am am na la jaral sa man-man na la jaral sa kàttan beneen ba ca teguwaat mu ne ko kon banan ban ba ca toppaat mu ne ko aj goo xam ne dañ koo jaaral ni nga ko war a jaar defe ko ni nga ko war a defee kon muy ñetti bi ñetti mbir yoo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bokk na ci jëf yi gën a kawe ci bokk na ci li nga xam ne itam ne aj lu am solo la mooy bokk na ci xeeti jihaad yi mooy jihaad nag mooy li li li nga xam ne moom woon gëm nga ko dalay jaral dara na la jaral sa alal na la jaral sa bakkan bu ko laajee nana jaral sa man man nana jaral sam xel loola mooy jihaad kon tuddul rek ne gàddu jees rek la tekki waaye li muy tekki mooy sa man man ak sa am am rëpp na na la ko lislaam jaral loolu moo tax nag am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man day mu mel ni kon moom dama jàppoon ne mooy jihaad mooy gàddu jees rek dem ca toolu xare ba loolu la jàppoon bi ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaye man xool naa sama bopp xam ne am ragal laa xool naa sama bopp itam ne ku néew doole laa ab ragal néew doole nag yaakaar naa buñ ko buñ ko dee séntu ci koo xam ne dafa ragal boole ci néew doole buñ ko dee séntu ca toolu xare ba yaakaar naa la mu fay def du bari ba mu ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag kaay nag ma wax la loo xam ne aj jihaad lay doon te dégg sax du la fa jam mu ne ko loola la mooy lan mu ne ko mooy aj mooy aj kon mu mel ni lislaam dafa doon loo xam ne doonut day togg nit ki lu mu mënut wala lam ko togg tam tam man tam doon lu toll ab tolluwaayam ak man manam lu mu ko lu mu lu xeebu xeebu itam la ca ka nga xam ne nekk ci kawam di def lam cay am moom la cay am ci li nga xam ne moom la ko lislaam togg togg loola nag di ñu woon lislaam ni mu yër bare yër mëne ak ni suñ borom yër bare yër mëne ci doomu aadama yi ba lépp kenn ku nekk la nga tollool la nga cam la nga te di ko def bul ko xeeb ndax xam nga ne kala kala kawe ak gën ëpp lu doole gën laa mën a def lu muy def itam du la ëpp du la ëpp ak pay ci la nga xam ne moom ngay def te tolloog moom loolu lislaam moo ko def ngir ngir bu wane yërmandeem ak ak bëgg ak dencal gi nga xam ne moom la suñu borom denceel ak cofeel ak mbëggeel ci doomu aadama yi leneen li nga xam ne itam aj dana ko def mooy doon na loo xam ne day far al bakkar ndax yonent bi sa alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne aji nga te ba nga demee jëfoo fa yenn ci axaan defoo benn ak loo xam ne génn na génn na ak njub waaye dangaa def lé waxoo fa luy loo xam ne waroo koo wax defoo fa itam loo xam ne waroo koo def ne nee koo xam ne def na noonu bu dellu siwaatee jóge ci aj ga day mel nii koo xam ne suñ borom da koy doog a day mel ni liir boo xam ne bii soog a judd la te xam nañ ne liir buy soog a judd amul benn bàkkaar boo xam ne moo moo nekk ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat itam ne na ngeen xam ne kat yi ak umrakat yi day ay gani gani suñ borom lañu te kenn ku ne xam na ne gan moom teral mooy ci waral te xam nañ ne bu ndee woo bu ndee wax teraanga rek suñ borom a ko gën a mën ñëpp loola nag moo tax mu ne kon ñooñu nga xam ne ñooy ajkat yi ak umra yi am umrakat yi day dañu xam ne gani suñ borom lañu ganuk suñ borom nag doomu aadama ci àdduna benn lekk soxla am la fi am àllaaxira ëllëg nag njëggal la fay la fay sàkk mu ne fekkee ne nag ci àdduna si la la laaj dara loo xam ne lu koy defaral addunaam la te duñ ko yàqal ci dara ci li nga xam ne mooy pas-pasam su ko ñaanee suñ borom dana ko defal bu dee dafa jéggalu itam ngir ngir xalaat ëllëg suñ borom dana ko jéggal mu doon kon yoo xam ne lu am solo la moo ta bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat itam ne aj day ak payam mooy àjjana loola nag Abu Hurayra moo ko nettali ci wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne day boo umra benn yoon ba ba keroog ngay umra loo fi def ci ay bakkaar yoo xam ne yu bakkaar yu mag la suñ borom dana la ko jéggal boo aj nag moom goo xam ne gu suñ bo comme benn yoon la la war ci sa dund boo ko defee ni nga ko war a defee nee na ëllëg amul benn pay lu dul àjjana rek loolu itam doon kon lu xam lu am solo yonent bi sallallahu alayhi di wax ne na ngeen xam ne day lisla aj moom moo moo mooy ponk mooy li nga xam ne moo dëgëral maanaam mooy ponk bi gën a dëgër ci lislaam li ñu koy won mooy xam nañ ne kuy julli ku man di doon màkk ngay jublu ndax mooy suñu xibla kon loola mën na ne mooy su bokk na ci fokk yi gën a dëgër ci islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nag képp koo xam ne jóg nga jublu foofe benn yàlla la dimbali la nga dem ak jàmm dikk dikk ak jàmm wala yàlla dogal la may dogal ci foofa nee na bu ko dogalee ci bu fekkee dafa dogal li dogal ci yow foofa de itam nee na amul lenn lu mu lay fay bu ëllëgee lu du tabbal àjjana bu fekkee ne dellu si waat na la itam na nga xam ne dellu si nga ànd ak yool yu ak pay yu yoo xam ne suñu borom jox ko looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal wax ne na ngeen di bari lu ngeen di def aj ak umra bu fekkee ne yàlla mën noon na leen ko ndax kat ñoom ñaar am na ñaari mbir yoo xam ne doomu aadama gën na koo ragal ci adduna si ak bi mu gën a ragal ci àllaaxira te yooyee aj da koy def da koy da koy far mooy ak ñàkk kenn ku ne xam ne doomu aadama moom la gën a ragal ci àdduna si àllaaxira lañ fa gën a ragal mooy ay bakkaar te nee na ñaar yooyu day aj ak umra yoo xam ne da koy far di def ci kaw sa kam lay kattan day da koy day far jaar yooyu te loolu xam nañ ne mooy mooy mooy li nga xam ne nag moo ñu war te moo ñu war ko bàyyi xel ñaareel bi nga xam ne itam ñu xam ne aj de moom benn yoon képp la la war ci sa dund lu dund rek yow da am loo xam ne xëy na ay jafe-jafe la wala ab tolluwaay wala am itti wax ne man bu suma itti ji fajoo wala su ma su ma tal su ma tolluwaay bi bi ko suñ borom dindee dinaa aji kon loolee nga xas nga wax waxal sa bopp yow danga koy da lay war nga def ko doonte njëkkul nga aji itam du tax nga du tee li nga wax léegi ni dana war nga war a ajiwaat li ñu xamal ne nag aj benn benn yoon képp lay war ci ci ci doomu aadama moo di yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas di waxtaan ay nit di waxtaan ak ay sahaaba wax leen ni xam leen ne yéen doomu aadama yépp day suñ borom aj benn yoon la ko bindi la maanaam bind na ci yéen da ngeen war a aj maanaam faratal na ci yéen da ngeen a war a aj kon nag bi mu ne yàlla day na ngeen xam yéen doomu aadama yépp ne suñ borom faratal na ci yéen aj am ku jaa di jóg ne ko waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj googee at mu ne dañ koy def bañ ba mu ko ba mu jógee laaj laaj boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne cell mu laaj ko beneen yoon mu ne cell mu laaj ko ba muy ñetti yoon mu mel ni kon loolu am na loo xam ne warees na ko ci jàgg ci ay teggin ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon ñeneen bu doon ñeneen yi wala ñi nga xam ne xaw na ñoo demee ni man buñ leen laajee loo xam ne wërta nekk ca saasa rek dañuy daal di tontu wala ñu wax waxi ko waxi nu xam ne koo kala doon sax mën naa caa ànd ak kersa waaye yonent bi sallallahu alayhi wa nan la def mooy bi ko walaaji bi ko walaaji waa ji laajee te xam ne moom xam na lam ko waroon xam na lam koy tontu xam na itam ndax lim laaj lu war a laaj lu ñu war a laaj li war a wërta laaj taxul gëddu ko wala mu wax ko waxin woo xam ne waxinu ñàkk teggin la da ko bàyyi mu wax ko ba ñetti yoon ba mu waxee ba mu joxee ba ñetti yoon na mu ne ko bu ma ne woon waaw de at mu ne lay war kon at mu ne da leen di war te xam nañ leen loolu kenn mënu ko yéen aj a ñi ñi war a aj jëpp mu ne wuñ ko noonu kon nag bu fekkee ne dama leen a wax ne def leen nangam nangam joojee ma leen wax na doon seen itte rek ngeen bañ a bàyyi xel la nga xam ne moo ci war a toppaat ndax bu fekkee ne dara war na caa toppaat na ngeen xam ne man dinaa leen ko wax ndax maa leen di jottali comme jottaleegu ma leen nag jërul ngeen di laaj loo xam ne da ngeen a jàpp ne xëy na yéen warees na ko ci mën a boole te fekk na waru cee fekk na waru cee bokk ndax lu ci war a bokk lu ne dinaa leen ko wax ni ba mu leer ne mu ne mu naan ne ko kon nag bu ma ne woon waaw da leen di war at mu ne kon kenn ku ne aj da koy war at mu ne te loolu xam naa ne mënu leen ko kon nag moo leen waxul boo amee loo xam lu nga xam ne nekk nañ ci seen xel te ngeen jàpp ne xëy na lu ci war a dugg la te waxuma ko li ngeen war a def moo leen nee leen càll ba déglu déglu ndax danaa leen ci wax dara wala wax leen waxut ma leen ci wax dara bu ma leen ci waxee dara nga ngeen xam ne kon noona lañ ko war a defee moo leen ci waxu dara itam ngeen xam ne loola lu ñu war a bàyyi la ndax daal leen xamal ne day ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te yàlla suñu borom yónni ci ay yonanti yonanti ci ñoom la tax ñu alko day moo dina dañoo nekkoon ñoo xam ne saa yu yonent bi wax su sule saa yu yonent bi leen bañ yónni ci ñoom waxee dara ñu ne ko ah, nangam nag bu waxaatee ñu ne ko nangam ak nangam boole ko bu leen waxee nangam jooje itam ñu ñu cey am ay xel yaar di di di di ci jéem a weranteeg moom mu ne loolu nag moo taxoon ñu alku kon te loolu moom bëggul bëggalu koo xeetam kon bëggut ñuy dugg ci loo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doonee lu mu war a jottali dana ko jottali bu ko jottaliwut nag nañ ce nañ ne ceel déglu ba xam lan la cay wax daal ne li ma leen di li ma leen di wax daal nga xam ne aw yoon la woo xam ne moo leen di dimbale mooy bu ma leen digalee dara na ngeen ci def seen kéemtaay kattan ci def ko bu fekkee teel naa tere naa leen dara itam na ngeen def seen kéemtaay kattan ci bàyyi loola. loola kon mooy li nga xam ne mooy li li ñu war a dox suñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu digalee ñu def ko bu ñu teree ñu bàyyi ko ni comme ni ko suñu borom waxee wa ma ataakum rasul fa xusuhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon yàlla mi nga xam ne mooy borom mu yërmande te mooy borom jéggal yàlla nañu suñu boroom borom jéggal yàlla ñu suñu borom boole yërëm yàlla ñu suñu boroom nangul suñuy jëf ci weeru tedd yi nga xam ne moom lañ génne te yàlla boo am def ci ay lépp doon yërmande ak xéewal ci ñu jullit ñi ñu war a bàyyi xel loole ñu xam ne itam nag lu baax buñ la ca dugalee ba nga dugg ca yaakaar naa wonaat ko ginnaaw loolu adduna jëru ko wala lu ko war a jar ci adduna amu fi comme yàlla dimbale ñu kenn ku ne yaa ngi doon góorgóorlu sa kem lay kattan bi nekkee ci koor gi na nga nañ gën a góorgóorlu ci téye bañ a bañ a deltu ginnaaw bañ a jëmaat feneen foo xam ne bokkut ak fi ñu war a jëm loolu suñu borom mën na hada wa li wa lakum li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim